waaw Sylvie maa ngi leen nuyu di nuyu képp koo xamante ne ñuy seetaan ak di ñu déglu ci li nga xamante ne moom mooy réew mi ak travers suñu plateforme yi di nuyu suñu invité du jour di nuyu képp koo xamante ne daa yaa ngi euh, safoo saa su nekk émission bi di Espace Jeune. Euh, merci Mor Fall donc euh, tey suñu thème mooy engage l'engagement citoyen des jeunes son mm. importance maanaam engagement euh, bi nga xam ne képp kuy doomu sénégalais war nga ko am mm. lan mooy solos bi loolu lañ fi fas yéene waxtaane ba tax ñu daral Christian Ndour secrétaire exécutif régional IMCA Dakar Mor Fall nga ñëw ci rubrique actualité balaa ñu daral gan bi waaw voilà donc rubrique bi nga xamante ne an tey ci actualité dañ koy jagleel li nga xamante ne mooy wàllu inauguration bu démb bi mu mel ne dem wàllu euh, inauguration bi stade bi waaye mel ne dafa am benn incident bu ndaw bu am ci euh, juste avant li nga xamante ni moom mooy fin bi muy y bokku beaucoup de monde yi nga xamante ni dugguñu woon ci biir stade bi léegi ñooñu nag euh, dañoo dem ba benn instant nag xam naa maire bi jàpp leen ak ñi nga xamante ni ñooy gendarme yi ñu mujj nag daal di am ay xëccoo yu am foofu seen diggante ak li nga xamante ni ñooy policiers daal di dajji barrières yi nga xamante ni ñoo fa nekkoon jàll toj fa ay li nga poste yi fa nekk ak yooyu donc mu nekk loo xamante daanaka euh, réseaux sociaux yi koy conservé di ko génne image yi mu nekk image yu ñaaw yoo xamante ni dem sax jot nañoo dóor sax ay quelques lacrymogènes yu ndaw pour mën a euh, tasaare li nga xamante ñoom ñooy askan bi parce que ñu bëri um, dugguñu ñenn ñi yoroon nañ seen ay seen ay invitation dugguñu ñenn ñi yoroon nañ seen ay ticket ñooñu donte dajal nañ ay dispositif yu bëree bëri bëri yu tax euh, ni ñu mën a dem teer bi nekk gratuitement leneen ak leneen mais teewul li nekkoon ci biti moom moo ëppoon fuuf li nekkoon bi bu mel ni euh, daanaka. problème organisation parce que. waaw problème organisation que. boo nee stade bi cinquante la yow nga joxe soixante mille Eh, yow yaay. non euh, man dama jàpp ne nekkul sax problème mu tikkee mais problème mu euh, euh, ni ñu ko ni ñu ko organiser la parce que bu ñu bu ñu toppoon rek nombre ticket yi nit ñi dinañ dugg toog te du am problème mais je pense que am na ñenn ñoo xamante ne dugg nañu te contrôle ñu wàllu ticket parce que yow l'essentiel que nga ñëw rek jàll ñu ne ñii ñooy jàll fii waa loge ñooy fii duñ contrôler sa ticket yi donc nit mën nga ñëw ñëw paas ñëw jàll te te te jëloo ak ñeneen ñi xamante koo jaay ñeel leen ak yeen am na yu yoo xamante ne am na ci loo xamante ni moom moo indi fukk bi ci nekk rek nit ki ñëw nga nga ne ko da dem euh, seetaan ji nga jox ko ticket mu ñëw ba foofu duggul parce que aussi euh, loolu loolu day day day tax nit ki xolam tàng ak yu ni mel tàngaay bi nekk foofu aussi ak poussière bi yu ni mel yooyu tax na li tax lu bëri bëri bëri bëri ñenn ñi sax mën nañu wax ne inauguration bi andiwu leen mais spectacle moo leen andi woon ñi seen artistes nañ ñoon xool si yooyu yëpp yëpp dajaloo foofu euh, je pense que war nañu jël matuwaay bi tax dëgg-dëgg ko baax a baax gendarmerie ñi ngi fa woon discours am na fa ci euh, ci fin bi te sax ci fin bi la après ba Macky Sall defee discours am ba pare euh, la ñenn ñi sax ko commencé ñi parce que xamoon nañ ne euh, coow dina fa am ak ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci buntu bi donc mu nekk loo xamante ni ñu ngi koy déplorer loo xamante ni amagul sax. une journée d' inauguration ñu ñu commencé yàq donc day wane ne incivisme bi ñu wax ci ci sénégalais ak ñàkk wor bi nga xamante ne sénégalais am nañ ko ci seen yenn infrastructure yi day dëggal li nga xamante ne moo amoon démb fa nga xamante ne moom mooy ca stade bu Abdoulaye wu Abdoulaye Wade. ah mënuñu ñàkk Sénégal lañ nekk foog ñu wane suñu ah, bopp. ah non wala sa bopp ci lu bees moom <laughs> day yéeme. ñoo mel noonu Christian. Euh, Christian Ndour ma bàyyi la nga nuyu ak auditrices su jërëjëf Sylvie merci beaucoup maa ngi lay jaajëfal ci invitation bi di nuyu auditeurs Rewmi FM yëpp di ñu déglu. Mm-hmm. di yaakaar ne waxtaan bi de dina amal njëriñ ndaw Sénégal yi mm-hmm. yëpp. Mm-hmm. ñu baax bàyyi la rek sa appréciation ci euh, rubrique actualité bi nga xam ne Mor Fall indi na ko ak incident yi am démb ca inauguration stade Abdoulaye Wade bi. waaw dinaa nekk à l'aise pour wax ci parce que maa ngi fa donc am na loo xam ne euh, dañ koy tënk rek ci civisme. xam nga li nga xam ne ñëpp ko bokk. Euh, Sénégal dañoo tàmm li nga xam ne ñëpp ko bokk day mel ni kenn moomu ko. Mm-hmm. alors que contraire bi la war a doon. Mm-hmm. li nga xam ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ñun ñëpp dañ ko war a sàmmandoor. Mm-hmm. waaye pour loolu am il faut problème d'organisation bi ñu wax léegi. il faut ñu ñëwaat ci. c'est-à-dire que bu ñu bëggoon nit ñi tegu ci yoon dañ koy teel a waajal. c'est-à-dire bi ñu def mooy nit ñi gis nañ seen bopp stade bi moo tax nit ñi bëri. mais fu nit ñi tamit def seen xel ne nous sommes seize millions ak dix-sept millions de sénégalais. Mm-hmm. cinquante places foog ñu xam ne ñëpp mënuñu fa nekk. Mm-hmm. foog mu am ñu nekk ci biir am ñu nekk ci biti am ñu mm-hmm. toog seen kër di ko seetaan télé. donc ñi ñëw jot a mën a dugg. mën nañu dugg ñu toog seetaan ñi nga xam ne mënuñu dugg seetaan parce que stade bi fees na. xëy na ñu mën a nangu ne ah fees na nañu toog ñu seetaanee ko suñu kër wala ñu dem seetaanee ko télé. donc yooyu mooy nekk yi nga xam ne peut-être foog moom lenn li nga xam ne mooy nekk ci yow nga lii mooy tax tey du ma nangu yàq ko parce que su ma mel ni sama yàq. te il faut que Sénégalais yëpp xam ne xa euh, stade bi ñu defar nii du stade du président Macky Sall wala stade du président Abdoulaye Wade c'est le stade des Sénégalais Sénégalais yi ñoo ko moom suñu xaalis kenn ku ci nekk ci ñun li ñu lay dagg ci ay tax ci ay impôt moo fay dem. Mhm. donc day baax ku nekk xamee ko noonu. Mhm. su ko defee buñ koy sàmm ñu xam ne li ñuy sàmm suñu moomeel la ñu mun koo toppatoo ni nga xam ne. ki ko moom man mii moom sama yére di ko toppatoo bu ma bu tilimee ko fóot bu ma ko paase solaat ko. mun mel ni ku nekk def ko yére bi rek toppatoo ko ni mu waree. pour que boo ko solee ñëpp mën laa tagg ne la li nga sol rafet. Mm. mais aussi xam nga neexul tam nga am jot sa carton d'invitation dem ba foofu ak jam ni mu soree nga dem ba foofu ñu bloqué la ci buntu bi ne la doo jàll parce que fees. loolu moom dëgg la waaye xam nga li li ñu bëgg yëpp mënuñu ko am c'est vrai am na problème organisation dañuy wax sànq ay soixante mille ak cinquante mille mais si li ma xalaat. je pense que gars yi dañu ñëwoon sax 40 000 places pour des questions de sécurité ñu bañ ko feesal ci mhm. première kii bi 40 000 places donc loolu rek day mot ne ñoom dinañ ay matuwaay pour garantir sécurité bi li ci am problème rek mooy distance bi par exemple ci porte yi porte d'entrée yi dafa jege woon trop ce dem ay mouvement de foule mhm. mais bu ñu sori loon les les les les distances là pour que ñi ñi mën par exemple rangee fu sori mhm. ngay teel a filtrer plus nga sori porte d'entrée bi ñu teel a filtré plus mouvement de foule yi wàññeeku ci porte yi. Mm-hmm. xam nga ne porte yi ñu yàq dinañu dépensé waat xaalis. Mm-hmm. ban xaalis la ñuy dépensé suñu xaalis la ñuy dépensé te xëy na tey stade bi commencé guñu exploitation bi comme il se doit. Mm-hmm. donc alors que exploitation war nañoo jural lu bëri. mais tey commencé nañu yàq li nga xam ne ñun ñoo ko moom. alors que tey ñun ñoo ko waroon sàmm tomb bu ñu gisee kenn kuy yor xeer a ko déet. sa alal la. ku xam nga tey kenn du jël sa alal di ko tasaare boo ko liggéeyee ñaq ko sonn ci mhm. doo doo doo ko tasaare noonu mhm. donc day baax ku nekk xam xaalis boobu noonu fan la jóg ku nekk xam ne sa li ma jënd boutique sax bokk na ci contribuer li tax ñu tabax stade bi mhm. donc loolu day baax ku nekk xam ko parce que suñuy tax lañ jël dajale ko xaalis askan bi lañ jël def ko ci moo tax yar ndaw ñi ci wàllum civisme ak citoyen dafa am solo dafa am solo bu baax te ñàkk civisme mooy indi yenn yi mais tamit xam nga ful moom doy na waar am nañu naa la psychologie des foules loolu mooy tax buñ nekkee ci ful nii nit ñi lu ñu bëri bëri bëri bari ki ci gën a néew xalaat mooy yóbbaale ñëpp. Mm-hmm. loolu ful moo noonu ki ci gën a néew moo mel noonu. donc day baax ci ful boobu noonu ñu am ci quatre xam ne leer nañu ne ñii ils ont assez citoyen hmm. ils ont un bon civisme nga xam ne ñooñu war nañu mën a wax ne ñii mën nañ compter ci ñoom. Hmm. pour que ñu toppatoo seen alal. Hmm. ñu yokk ci leen ndaw ne heure bi dañoo waxoon de onze heures quinze heures donc ñëw au de quinze heures xam nañ ne président Macky Sall bu xasee ba dugg fenn. kenn mëntul dugg koo xamante ne mooy loolu. donc ñu Sénégalais aussi dugg te alors que bi bu xasee ba tëj porte bi je pense que duñ duggati aussi. IMCA je pense que am na lu muy def côté incivisme mhm. dinañ ci ñëw merci waa civisme <laughs> waaw mais boo ne civisme incivisme moo tax ñu naan civisme <laughs> <laughs> merci beaucoup euh, Christian ci boobule appréciation euh, yow nga toogal fii euh, IMCA ya di coordonnateur justice juvénile nekk secrétaire exécutif régional IMCA bu Dakar je pense que fii ci Sénégal année bi mooy seen quarantième année ngeen nekk fii euh, ci Sénégal di liggéey toujours au service des communauté et des plus nécessiteux euh, nga ñëw ci euh, IMCA lan lan lan lay signifier ak lan moo ko tax a jóg balaa ñu dugg ci waxtaan bi. alors IMCA mooy Young Men Christian Association ci anglais la waaye mun nañ koo tënk ci kuréelu ndaw yi nga xam ne day day day yëngatu ngir askan bi yëngati ko ah, ngir askan bi da koy def ci kaw ku ci nekk nga jógal sa bopp jël sa sa jot jël sa alal def ko ci askan bi. moo loolu la ñuy wax bénévolat volontariat donc ñun dañoo nekk kuréel ndaw bi nga xam ne euh, ñu ngi Sénégal depuis 40 ans moom nga wax léegi donc depuis 40 ans IMCA mu ngi Sénégal nekk fi di liggéey ci fànn yu bëri liggéey ci wàllu éducation muy yar bi di liggéey ci wàllu santé muy wérgu yaram bi di liggéey ci wàllu euh, njàng meeg njàngale mii di liggéey ci wàllu Euh, justice mooy yoon. Mhm. di liggéey également ci wàllu xëy xëyu ndaw yi. Mhm. muy insertion. Mhm. entre mën nañ ci dugal entrepreneuriat employabilité. di liggéey également ci wàllu environnement. di dugal di liggéey également ci wàllu agriculture. ñu ngi ci huit région yu Sénégal nekkaguñu fa mais ci régions yi ñu nekk quand région bi ci nekk am nañ ci ay ndaw yoo xam ne ñoom ñoo taxaw gis ñi IMCA li muy def nii amal na njëriñ askan bi ñoom ñu ne ah man damay jóg nekk ci wetu as IMCA liggéeyal sama askan dañ IMCAS bu ñu ko mënee tënk nañ jàpp ne kuréelu ndaw la yoo xam ne ndaw yi booloo nañu mhm. gis ne ah ñun ñu ngi si dëkk fii nii fii la dëkk ñu xool yan problème la ñuy jànkontoo ñu booloo xool la la ñu mën indi IMCAS li muy def rek mooy dajale leen préparer leen tàggat leen ngir que ñu mën a saba ñu ngi ñu mën a régler problème bi tax ñu jóg mhm. yéene a ngi ci région yëpp fii ci Sénégal déedéet Dakar Thiès Kaolack Ziguinchor Kolda Sédhiou Tambacounda ak Bakel. Ah, lu tax yaataloon leen alors euh, mënuñu woon nekkagum fépp pour le moment bu ñu sañoon fépp la ñuy nekk. 40 ans ngeen nekk fi Sénégal mënoo leen dajale Sénégal bi yëpp région yi bëriwul. dañuy dajale doole bi xam nga boo mm-hmm. boo tasaaree doole bi intervention bi mën naa métti te lépp looy def dafay dafay dafay laaj euh, moyen. kon da ngeen ciblé région yooyu pour le moment. waa région bu ci nekk am na lu tax ñu nekk fa day am li nga xam ne mooy besoin bi déjà moo fay nekk te tamit xam nga région bu ci nekk am na association organisation privée yu bëri yu fi nekk ku ci nekk nekk na fenn. mais dañuy xool fi nga xam ne parce que am nañu suñuy orientation euh, ci li nga xam ne moom lañ teg suñu priorité muy éducation di formation di santé jàpp nañ ne région yi ñu nekk foofu la besoin bi gën a gën a sentir moo tax ñu dem foofu am na région yoo xam ne mënoo fa ñàkk nekk parce que c'est lu mel ni Dakar capitale la li lijjante yëpp côté administration yëpp foofu foofu la nekk donc am na ci affaire yu bëri yoo xam ne euh, question stratégique mooy tax nga nekk ci région boobu maintenant bu possibilité amee pour que ñu dem feneen ñu ngi woon Saint-Louis mais nekkatuñu fa ci université bi mais tey bu ñu amaatee possibilité dellu Saint-Louis dinañu dem Saint-Louis mun nañu wax ne peut-être zone nord bi moo xaw a dessert bi ak mais suñu sañoon bu doon suñu suñu coobare bopp rek ñu taxawaat ngir mën a nekkaat ci région yëpp. Mhm. Ah, Sylvie waaw IMCA may ma rek association Young Men Christian Association. Mhm. Euh, association catholique la mais est-ce que catholique yi kese ñoo si nekk. wala association catholique association chrétienne. waaw parce que catholique ak euh, am na différence chrétien moo ëmb. moo moo ëmb bu mag bi. Mhm. association chrétien la maanaam ci fondement bi la parce que IMCA dafa juddoo ci prière. Mhm. ci ay ñaan ñi ko créé dañoo nekkoon ci ay difficultés. donc ci biir difficultés yooyu ñu doon dund ñoom ci askan bi ñu nekk Angleterre mu nekk côté révolution industrielle bi donc ñoom ñoo doon dund ay jafe-jafe. ñu xalaat ne ah comme ñu ngi dund jafe-jafe nañ dellu ci yàlla dellu ci suñu borom donc loolu moo tax ci biir euh, seen ñaan boobu noonu ñu doon ñaan yàlla xëy na moo tax yàlla ne leen booloo leen ngeen doon benn ngeen bu ngeen lu ngeen song rek mën ngeen ko daal ci la ñu booloo nag dajaloo créé kuréelu IMCA bi léegi ñu gis ne ci biir ñaan bi ku nekk yaa ngi commencé gis sa bopp ñu ne est-ce que ci ñaan bi rek la war a yem ci lañ commencé nag dugg ci social bi mm-hmm. ne ah kii mu ngi def kii am na di problème bii nii man mën naa jàppale ma jàppale ko loolu lañ naan entre aide ci groupe bi la commencé mu def nag mu commencé daw ci àdduna bi yëpp ba yegg ci Sénégal. Mhm. donc loolu moo waral mouvement chrétien bi mais ci biir bénéfice bi tey bu ñu xoolee IMCA Sénégal. mais du chrétien yi rek ñoo ci nekk ñi ci ëpp sax du ñu ay chrétien mhm. ñu ci bëri suñu mbokk jullit yi la mhm. te pourtant ñu ngi ciy gis seen bopp mais quand même li li yëkkati IMCA dafa juddoo ci chrétienté moo tax mu nekk un mouvement chrétien moo moo moo moo mooy mooy euh, tënk fi IMCA juddoo. Mhm. am ci leeral yi ci parce que man la lan lan moo IMCA su ma ko gisee damay damay xaar li nga xamante ne wàllu rap américain affaire du mhm. parce que IMCA ñi koy utiliser ñu bëri bëri je pense que ni ñu koy gisee euh, ñi def rap ñoo koy def donc la avoir choisi le le mot IMCA juste euh, dafa juddoo euh, au delà du Sénégal wala wala juste da ngeen da ngeen bëggoon jël tur bi rek daal di koy internationaliser yi nga xamante ku da nga si a gis sa bopp Sénégal mais ñëpp dañ ci mën a euh, gis seen bopp moo tax ngeen jël IMCA boobu. waaw tur bi dèjà dafa am tekki te IMCA jotewul daal ak rab. Hmm. rab hmm. rab ak IMCA jotewul c'est hmm. c'est mais mais mais mais le slogan le slogan IMCA am na am na ay rab la. sigle la sigle la sigle bi day signifier Y bi. yang mooy jeune. Euh, men homme. Euh, Christian chrétien. association des jeunes chrétiens union chrétienne des jeunes gens. Mhm. donc association boobu noonu. imkaay boo gisee da nga koy gis ci yenn woy mhm. parce que fa mu juddoo nit ñi dañ ko doon woy ndax dañ doon gis li imkaa doon def ñu jàpp am woykat yu gisoon li imkaa def ñu tax ñu woy imkaa mhm. loolu moo tax ngeen di gis imkaa ci yenn woy yi mais loolu du sax Sénégal c'est au Sénégal mais mouvement bi ci boppam jógewul Sénégal IMCA fépp foo dem ci àdduna même IMCA bi la. Mm-hmm. boo gisee sax am lu ñuy naan les alliances. Mm-hmm. dafa am alliance mooy tënk IMCA yi nekk ci adduna bi yëpp. am na alliance africaine mooy IMCA yi nekk ci Afrique yëpp. te ñoom ñoo bokk benn logo. Mm-hmm. mooy loolu mooy wane vision bi nga xam ne ñun ñii Afrique ñun ñëpp ñoo ko bokk. ci IMCA bi vision boobu ñu ngi koy taral ak suñu logo bi parce que ñun ñëpp ñoo bokk logo bi. léegi turu dëkk bi rek mooy changé gis IMCA Sénégal gis IMCA Togo gis IMCA Ghana ainsi de suite. donc loolu noonu mooy tënk Mhm. mais jotewul dara ak musique ak leneen ñu mhm. gars yi ay musiciens ñoo gis li imkaan di def ñoom ñoo identifier seen bopp identifier seen bopp gis seen bopp ci li imkaan di def tax ñu bëgg koo lawal à travers la musique mhm. est-ce que mën nga ñëw ci ay réalisation wala activités yi nga xam ne IMCA amal na ko fii ci Sénégal euh, xam naa mënoo ñëw depuis 1982 bañ ko kii na xam naa juddoo woon <laughs> waaye mën nga ñuy wax rek euh, pour ñu am une idée IMCA lan lay def ak lan lay jëriñ euh, askan wi daal. alors IMCA li muy def bëri damay commencer jël par thématique ma jël par domaine d'intervention dañu jëlee d'abord ci wàllum éducation mooy ci wàllum yar euh, bi ak euh, njàng bi mm-hmm. donc IMCA def na li ñuy naan encadrement des enfants mooy xam nga xale yi tey ci wàllum njàng bi gis nañ ne xale yi li ñuy jàng école rek doyul mm-hmm. donc dañuy soxla tey ñu jàppale leen pour que bu ñu jógee école ñu mun leen jàppale ñu mën a euh, jàng seeni la leçon mun a def seen exercice mhm. ku mënul woon lire ñu jàppale la pour nga mën a liir mhm. ku mënul traité exercice mathématique ñu jàppale la nga def exercice mathématique après ñu dugal ci nag li nga xam ne moom la ñuy wax compétence de vie mhm. nañ ko tënk ci euh, euh, yaru àdduna ci nga xam ne ñu yar la nga xam naka ngay toogee mooy li ñuy wax suñuy valeur loolu tamit IMCAS da ciy liggéey mais da koy def ci pour xale yi nga xam ne ñoo nekk yi ba CM2 ñu koy def loolu ci wàllu éducation donc renforcement scolaire bi IMCAS da koy def di yar xale yi ci par exemple li ñuy wax les compétences de vie donc di leen ko jox di leen tàggat ci loolu ñu koy def ci suñu région yëpp ak suñu branche parce que suñuy volontaire ñoo koy def ñoom la ñuy tàggat ñoom ñu jël xam-xam boobu noonu di toppatoo seen xale yi seen rakk yi mm-hmm. parce que ci biir koñ yi lañ koy def donc ñoom ñooy def loolu noonu mm-hmm. bu ñu jógee ci wàllum éducation bu ñu desee ci wàllum éducation tam defal nañu benn curriculum boo xam ne ak ministère de l'éducation curriculum bi nga xam ne tey day dugal lecture mathématique ak compétence de vie mm-hmm. malheureusement bon ministère de l'éducation bëggoon na ko mais xëy na peut-être ñun amuñu doole bi pour ne leen dugal leen lii ci curriculum parce que loolu état mooy apprécier mm-hmm. mais jàpp nañ ne parce que ñi ñu liggéeyal lii ba tey ñu ngi ko utiliser ñu ngi ko commencé depuis 2012 euh, si je ne donc yooyu noonu dafa nekk yi nga xam ne ñu ngi koy def mu ngi fi te ba léegi ressource boobu noonu mu ngi fi donc mën na jëriñ askan bi bu jógee ci wàllum éducation ñu dem ci wàllum formation. Mm-hmm. du formation professionnelle parce que am na de formation professionnelle yu bëri yu fi nekk. Mm-hmm. mais dafa li nga xam ne mooy gunge formation professionnelle bi muy par exemple ay développement personnel. Mm-hmm. di leadership di euh, culture numérique. parce que tey gis nañ ne li nga gis koo xam ne jàng ba pare am sa diplôme loo peut-être xëy na formation bi c'est pas adéquat mhm. mais UG boobu li ñu lay jox nañ la renforcer ba nga xam ne yow xam nga fi nga bëgg a dem mhm. boo xamee fi nga bëgg a dem dañ lay jàppale pour que yow nga xam lan nga soxla pour yegg foofu mhm. li nga soxla pour yegg foofu nga dem uti ko ñu xool naka ngay def pour mën a li nga soxloon pour mën ko jël na ngay def booy ba gaaw ko mën a am muy style d'apprentissage parce que ci nekk am na nooy jàngee donc nañ lay jàngal naka a jël li nga soxla a gaaw avancer que ci nekk am nga sa objectif dañ lay jàngal nga fixer objectif xool nan muy li nga xam ne dafa nekk leadership leadership bi mooy li nga xam ne yow mën nga ñëw nga bëgg benn affaire nga mën a jël ñeneen yëkkati leen boole leen ne leen nañu dem ci lii wala mu am dara loo xam ne yëkkati nañ ko yow nga yëkkati askan bi ànd ak ñoom mu wane sa sa sa sa mën-mën yëkkati ànd ak askan bi mën a teg benn affaire bi nga xam ne dina amal njëriñ askan bi buñ ñu jógee foofu tamit toujours ci wàllum formation dañuy def wàllu formation entrepreneuriat mm-hmm. entrepreneuriat tey gis nañ ne tey Euh, ci wàllum insertion pour nit ñi am liggéey jafe na donc ku ci nekk il faut nga xam naka ngay def pour mënal sa bopp. Hmm. ci biir mënal sa bopp am na ñoo xam ne ñoom ñooy créer seen bopp seen entreprise mais tey ki nga am na ñoo xam ne xamuñ naka la ñuy def tey pour créer entreprise xamuñ naka ngay def sax pour am euh, registre de commerce. donc ci suñu formation dañu leen tàggat ay information yu ndaw yoo xam ne da koy jox ndaw ñi boo leen ko joxee ñun dina leen jëriñ. donc ku ci nekk tey boo bëggee def sa business plan IMTA mën na la gunge donc formation dañ koy def def nañ ko ba tay ba liggéey nañ ci sax récemment dans les centres de formation professionnelle ak programme apte bi bu IDC def nañ ko ci suñu programme bi depuis 2015 ñuy former ay plus de 12000 jeunes di leen préparer à l'emploi ak à def ko ci entrepreneuriat agricole dans la zone sud Ziguinchor Sédhiou Kolda nga xam ne tey ndaw ñi dañ leen delloo ci suuf si ci mbéy mi parce que loolu dafa nekk li nga xam ne am na solo. Mm-hmm. ndaw yi nga tàggat leen ci loolu. donc loolu noonu bokk na ci li ñu kaa def ci wàllum formation ci bi tàggat nañ ndaw ji ci euh, formation transformation produits locaux yi mm-hmm. nga xam ne ñoom tey ñu ngi xool toute la chaîne de valeur agriculture bi muy transformation produit bi transport transport bi conservation bi yooyu yëpp ñu ciy tàggat ndaw yi mm-hmm. parce li nga xam ne day jàppal ndaw bi pour mu am xëy suba mm-hmm. bu ñu jógee foofu noonu ñu ngi liggéey aussi ci wàllum Euh, environnement ci wàllum environnement dañuy laal li nga xam ne ah, peut-être ñu ngi wax changement climatique. Mhm. mais tey gis nañu carrément tey li am ay mbuus ay déchets plastiques yi ci mbedd mi. li ñuy def mooy par exemple def nañ ko ci ay école taggat xale yi pour que ñu bañ a jël tout ce qui est plastique ñu koy au lieu ñu koy sànni mbalit ñu dajale ko. ko dajale dañ koy recycler ko mais recycler bi day dañ koy def ci ay bouteilles également en plastique ci bouteilles yooyu noonu. Mhm. moo la ñuy jël defar ko li ñuy wax ay écobrique. Mhm. yooyu noonu moom mooy servir. pour que nga aménager ay espace dans les écoles wala dans les quartiers nga defar ko bu ko defee mbalit boobu ngay jël transformer ko defar foo xam ne askan bi waa koñ ba ñëpp mën nañ fa toog ca koñ bi dinañ ci gis seen bopp. au lieu ñuy mhm. jël mbalit bi di feesal mbalit yi di lakk. benn di feesal wala di yàq euh, couche d'ozone bi parce que plastique bi xam nañ gaz carbonique bi dégage mhm. bu bëri donc yooyu yëpp dañ koy def ngir mën a euh, jàppale askan bi et jël mbalit bi au lieu nga koy sànni nga transformer ko c'est des actes citoyens parce que au lieu ngay sànni di nga recycler ça veut dire que di nga wàññi mbalit mi mais di nga mbalit bi utiliser ko pour askan bi donc dina amal njëriñ askan bi bu ñu jógee foofu ñu ñëw aussi ci wàllum bi nga xam ne peut-être mooy suñu suñu caat bi ni ñu ko mënee wax mooy suñu mooy justice juvénile parce que tey yoon. Mhm. Euh, li ci lalu bëri na. mais tey ñun ñu ngi liggéey ci wàllum yoon di def li nga xam ne moom lañ naan prévention mooy ndaw yi nga xam ne. ñu ngi am ay jafe-jafe ak ay rëq-rëq wala ak ak seen waa kër nga xam ne tey peut-être soit ñu ngi ci mbedd mi di taxawaalu parce que déggoowuñu ak seen waa kër mënuñ toog ci kër gi wala ñu jóge ci daara ba jóge ca daara ba daw nekk ci mbedd mi léegi ñoo ñëpp dañ leen di jàppale ngir ñu jóge ci mbedd mi donc li ñuy def ak ñoom mooy toog di waxtaan ak ñoom wan leen li nga xam ne moo baaxul ci mbedd mi wan leen lan moo baax ci nekk ci sa kër mais loolu dañ koy def aussi di ci liggéey seen waa kër parce que boo bëggee jëli nit ki fee delluwaat ko këram il faut nga régler problème boobu amoon kër mhm. muy li ñuy wax médiation loolu tamit dañ koy def ñi nga xam ne caabi leen féete ginnaaw ñu nekk ci kaso dañuy liggéey ak ñoom ngir jàppale leen ngir ñu gaaw a génn muy ñuy intervenir côté boobu noonu ci système pénal bi mhm. parce que tey Sénégal amoon nañu benn loi boo xam ne mu ngi fi depuis euh, ñaar fukki at ba léegi Sénégal mu mënuñu kon appliquer mais ñun ba ñu ñëwee ci wàllum justice ba léegi ñu ngi ciy commencé appliquer ñu ngi ko commencé nag ba juge commencé bëgg cee dem demaguñ ci nag comme ni mu waree comme ni ñu ko bëggee mais ñu ngi ci. programme boobu ça consiste à quoi. foofu dañuy def li nga xam ne moom la ñuy wax prévention déviance li nga xam ne mooy waajal ñi nga xam ne ñu ngi waaja am ay rëq-rëq ak yoon ñu préparé pour que ñu bañ am ay rëq-rëq ñi am rëq-rëq ak yoon ñu jàppale leen ngir ñu gaaw a jóge foofu te bañ fa dellu ñi nga xam ne amoon nañu jëflante nañu ak yoon ba pare bu war a génn kaso ñu mën leen jàppale ngir ñu mën a am xëy mën a delluwaat ci askan bi bañ delluwaat kaso donc loolu la ñuy def ñu boole ci li nga xam ne moom la ñu naan plaidoyer di ñaax autorités yi muy ministère de la justice di juge yi ak magistrat yi pour que ñoom ñu mën a jàppale ndaw yooyu mhm. parce que ñoom tamit dañu am liggéey bu am solo buñ ci am mhm. dañuy jàpp ne juge tout le temps day jàpp di tëj rek ak procureur dañuy jàpp di tëj rek mais am na beneen liggéey bi ñuy def parce que tey état dafa jox administration pénitentiaire ñaari liggéey benn bi muy sécurité mi nga xam ne mooy jël ñi nga xam ne yoon teg na leen loxo mu tëj leen fexe ñu bañ a génn mais beneen bi daf ko jox mu préparer leen ngir que suba ñu bañ a dellu si. Mhm. mais jafe-jafe bi mooy daf ko jox liggéey boobu noonu te joxu ko ko liggéeyee. donc moo tax ñun ñuy société civile côté boobu dañ ciy jàpp lu parce que nit ki bu génnee bu amul dara li mu def dina yomb mu dem defaat li nga xam ne dina ko delloo kaso donc pour bañ mu dellu kaso dañuy dañ koy jàppale pour que moom mu mën a am ci li mu jàpp mën a bañ a dellu kaso mën a nekk ci liggéey bu am solo. Euh, di liggéey tamit ci li nga xam ne mooy système pénal bi ma doon wax léegi ñu ciy wax ci aménagement des peines mhm. ñu ciy liggéey pour que ñi nga xam ne ndaw yi nga xam ne ñu ngi soog a jëflante ak yoon parce que nit ko dul juum amul mhm. tey ñun ñëpp mën nga xëy nga juum rek yoon teg la loxo mhm. mais li ñuy wax juge pour que tey ñooñu noonu comme yoon may na leen ko au lieu nga leen di yóbbu prison directement nga jàpp leen dénk ko INCAR wala dénk ko beneen association bi nga xam ne kooku dina mën a liggéey askan bi ñu topp ko ni juge bi ah kii kat au lieu nga koy yóbbu prison li na ko liggéeyal askan bi mu jëriñ askan bi mën na ko def nag à travers suñuy activité mm-hmm. mais loolu juge bi mooy xool mu apprécier mm-hmm. tey loolu pour am ko il faut juge bi habilité la te loolu Sénégal moo ko amagumoon depuis vingt ans euh, mu ngi fi woon INCAR na ko léegi ñu ngi liggéey ak juge ci loolu c'est vrai que ba ñu commencé ci affaire boobu ñaari la mais quand même def jot nañ ci def liggéey bu am solo boo xam ne tey. jot ngeen ci euh, génnee mm-hmm. ay nit. waaw pas suñu objectif nag du génnee. Mhm. justement suñu objectif mooy ñu teg yoon. parce que xam nga boo ne génnee. Mhm. ki tooñ comme yoon dafa ne boo tooñee dañ laa war a tëj wala boo tooñee yoon lii la war a lii la war a teg comme daan. ñu li ñuy wut rek mooy oyofal daan bi ngir que yow nga bañ a dellu parce que mhm. loolu mooy suñu objectif suñu objectif du génnee la prison parce que ku tooñ yoon da war a teg loxo mais ci kaw comme yoon may na la possibilité pour que nga réinsérer en avocat yi am ñoom ñu am nañ seen liggéey ñun li ñuy def. wala médiateur mën nañu wax ne dañuy jouer rôle médiation pour que justice mën a allégé wu pour que justice bi bañ doon justice bi nga xam ne. daan rek la xam mais justice bi nga xam ne mën na nekk une justice bi nga xam ne mën na favoriser la réinsertion. Mm-hmm. parce que boo xoolee ci principe. principe loi bi. exactement principe principe bi tey. c'est permettre à la personne de mën a réinsérer wu. Hmm. bu mënee réinsérer wu mais il faut que nga teg conditions yi pour loolu moo tax tey IMCA jox euh, état jox ñu sañ-sañ pour que ñu mën a liggéey ci loolu parce que état xam ne moom kese mënul def lépp. Hmm. mu jël pouvoir boobu noonu jox ay association wala ay organisation pour que ñu mën a def liggéey boobu waajal ndaw yi pour que ñu mën a réinsérer wu bañ a dellu kaso parce nit ki nekk kaso. disons ay charge la pour état. Mhm. mais tey ñun liggéey bi ñuy def buñ ci demee bu baax bu mu commencé dox. Mhm. dina wàññi charge état bi. Mhm. dina wàññi liggéey administration pénitentiaire dina tax prison yi dootul fees te loolu dafa am solo. dina tax tamit ki nga xam ne mu ngi soog a jëflante ak yoon ñu fexe mu bañ a dem prison mais fexe tamit bu jógee foofu li mu toor bi mu def askan bi mun ko rectifier dootu ko defati ba pare ñu fexe former ko tàggat ngir boo xam ne da jëm ci liñ koy tàggat finalité booy mu doon ab citoyen modèle parce que loolu mooy finalité bi ki nga xam du xese rek génne ko priso rek bàyyi ko mu dem déedéet boo génn bu ñu fexee ba nga génn dañ lay gunge tàggat la bu dee amoon liggéey ñu fexe nag nga amee liggéey parce que ki nga xam ne toog nga defuloo dara jublu ci li bon day yomb mais bi nga xam koo xam ne yaa ngi xëy di dem di liggéey yàlla mën na la muusal ci yu bëri. Mm-hmm. donc loolu la ñuy def ngir utal occupation li ñuy wax mm-hmm. que yow nga fexe a def li nga xam ne mooy tax suba doo am ay rëq-rëq ak yoon. Mm-hmm. donc loolu mooy mën naa tënk daal liggéey UMCAS ci loolu. du liggéey nag bi ñu def depuis bi ñu liggéey bi fi nekkee li ñuy def ba léegi bëri na parce que liggéey nañu ci wàllu santé. Euh, santé de la reproduction liggéey nañ ci ay at yu bëri ñu bëri xamoon nañu UMCAS ci wàllum. Euh, lutte contre le sida xamoon nañu ci centre de la reproduction des adolescents et des jeunes causeries yi ñuy def mhm. donc IMCA dafa laal domaine yu bëri mais dañuy tënk IMCA ci ndaw mi mhm. li nga xam ne moo wër ndaw bi war koo mën a jàppale pour que ndaw mën a nekk ndaw ëllëg boo xam ne mën nañ ko jàppee modèle ndaw bi nga xam ne mooy jëriñ ëllëgam suba IMCA da ciy tax donc lépp li wër ndaw bi rek. war a mën a jëriñ ndaw bi macha allah je pense que bu ñu jagleeloon activité IMCA une heure yëpp du tax sax ñu mm, pare. mais euh, <laughs> loolu lépp li nga fi wax yëpp di ngeen soxla ay volontaires. waaw. ay volontaires du l'engagement citoyen de mhm. la jeunesse exactement tey euh, yéen euh, naka ngeen di def da ngeen di jël ay volontaires di leen di fay wala doo leen fay ak noo gisee euh, importance su engagement citoyen boobu ndaw ñi damay ñëw d'abord ci ci ci volontariat li li ko laal dafa bëri mhm. damay jël même terme bénévolat parce que volontariat tey terminologie mu ngi commencé changer mais bu ñu waxee bénévolat mooy ki nga xam ne yow tey yow yaay yow yaay jógal sa bopp gis ni lii war naa ci war naa ko mën a saafara ma jóg saafaraal ko sama bopp li IMCA di def pour am ay volontaire am wala ay benn am IMCA day ñëw da leen ne ah man kat damay xeex pour lii soxla du ma ci jàppale tey boo gisee ne yow mi ndaw nga gis ni ah xeex bi nii ban war naa cee mën a dugal sama loxo ma xeex ko ah da ngay jóg IMCA ah man ci xeex bi lii laa ci soxla ndaw mu ci nekk am na loo mën ku ci nekk am na loo xam ci loolu nga mën ci loolu nga xam ci loolu nga am nga ñëw nga ànd ak IMCA xeex problème boobu noonu nga xam ne yow war nga ko mën a saafa loolu la IMCA di def donc mënuñu fay liggéeyu volontaire yi mhm. xaajuñu ba koy bën ñii ñi ñooy ñëw gis ni IMCA li muy def nii amal na njëriñ askan bi man ma jógal sama bopp ci sama coobare bopp ma jóg gis ni IMCA li muy xeex nii jàpp naa ne lu baax la pour man lu baax la pour sama askan ma jóg ànd ceeg IMCA xeex ko teg ci sama tànk pour que askan bi mën cee jël. même buñ la fayul dërëm. même buñ la fayul dërëm ñoom sax ñoom ñooy jël seen xaalis di ci dugal parce que suñuy membre dañuy jël di cotiser dañuy cotiser ñoo ngi waajal benn camp mais camp boobu noonu boo demee ci camp bi ay formation la sur le civisme sur le développement personnel mais ñoom ñooy génnee seen xaalis joxe. cotiser parce que fa ñuy dem dinañu paas dem dinañu fanaan institut dinañu lekk ñu naan INCAR mënul génne loolu yëpp ndaw yi gëm INCA li muy def. Hmm. xam ne amal na leen njëriñ amal na njëriñ askan bi moo tax hmm. jeunes yooyu jeunes yooyu noonu di génnee seen seen alal di ci def parce que ñoom dinañ ci gis ñeneen parce que ki nga xam ne tey yaa ngi liggéeyal sa askan mais suba doo ko rëccu loolu benn aspect la ci biir formation ci biir formation bénévolat ak volontariat parce que tey. boo ñëwee pour def benn affaire nga ne ah man kat tey bëgg naa ñëw de manière bénévole mhm. ma jege IMCA ma liggéey ci wàllum justice parce que man droit intéressé na ma mhm. wala même ngay jàng droit nga nekk université jàng droit nga ne ah man lii kat war naa cee mën a jàpp nga ñëw de manière bénévole ngay jàppale IMCA mais liggéey liggéey boobu noonu ngay def de manière bénévole mais dañ la koy valoriser mhm. yow bu boobaa buy booy uti xëy expérience bu ndaw boobu noonu nga mais da nga koy valoriser nga dugal ko sa loolu def nga disons expérience professionnelle nga pratiquer sur le terrain. Hmm. suba boo demee di ut liggéey mais loolu dana jëriñ parce que liggéey nga ko de manière bénévole te ki nga xam ne yaa ngi def benn affaire xaaroo ci dara suba bu la fayee defe naa di def lu raw la nga daan def. loolu la loolu mooy philosophie yu IMCA bi nga xam ne tey noonu la yëkkatee ndaw yi boole leen. ñu xeexal askan bi liggéey pour askan bi bu ko defee ñoom seen bopp dinañ ci gis seen bopp du doon xaalis mais xam-xam bañ cay jëlee moo leen di jëriñ ëllëg te loolu kenn mënu koo fay. Mhm. Mhm. mais est-ce que euh, parfois parce que yéen seen activité yi bëri na. li ngeen di def euh, seen domaine yi ngeen di intervenir bëri na presque yéen secteur yëpp da ngeen di intervenir est-ce que parfois doo leen am euh, du mal à trouver des parce que jeunes yi léegi ñoom ñëpp a ngi daw ci ci ginnaaw xaalis bi. Mhm. est-ce que ñu ngi engagé wu ba loolu moom am na problème mu engagement dina am mais lépp loo gis rek organisation la tey euh, ñun par exemple mën nañu wax ne suñuy valeur dafa am honnêteté donc tey booy jël engagement da ngay jël engagement bi nga xam ne mën nga ko respecter. donc tey bu ñuy waxtaan par exemple ci benn activité bu ñuy planifier dañuy toog ñu xool ñu toog ñu waxtaan ñu ne ah war nañ def lii war nañ def lii war nañ def lii mais yaa ngi fa volonté mën nga am volontaire tey mais doo am mën nga bañ am euh, ressources yi nga koy defee doo am xaalis boo ko defee. Mm. donc li ñu gën a soxla tey see les ressources parce que tey boo amee ressources tey mën nga am capacité mobiliser mobiliser ay nit mais boo amoon xaalis c'est beaucoup plus difficile donc tey boo amoon ay ressources financières tey bu ñu mënoon multiplier suñuy partenaires par dix. wala par cent ñu def ko. Mhm. parce que loolu moo ñu yokk doole tey ngir ñu mën a gën a def. Mhm. parce que c'est vrai am na li nga xam ne engagement citoyen la nit ki moo koy indi mooy am alalam am sa am bëgg-bëggam ñëw jox ko INCA mais tey mën nga nit ki mën na ñëw mais du am xaalis mais tey ne serait-ce que sax pour woote il faut nga am crédit. Mhm. boo bëggee jox gars yi ne leen kaay leen ñu dem fee xanaa boo yeggee di nga leen jox sax au moins ndox ñu naan. donc yooyu bokk ci li nga xam ne day tënk activité te parfois yooyu tamit day def défaut. c' est vrai que parfois ñun quand dañuy am ressources nga xam ne moo ñuy jàppale petit à petit ñuy xool naka lañuy mais li ci ëpp suñuy membre ñoo koy génnee ñoom ñooy cotiser parce que bu dee projet même bu dee projet projet dafa am règle yu muy respecté mhm. te règle yooyu mënuloo ko wàcc parce que bés bés boo ko wàccee bailleur bi teg la ay daan bu ko defee yow nga ñàkk xaalis boobu noonu te loolu jaru ko balaa càkk nga respecté engagement yi nga jëloon donc day bokk ci li nga xam ne euh, ñun suñuy valeur la nga xam ne mën nga jël engagement yi nga xam ne di nga ko respecté mhm. mhm. euh, yow ONG ak euh, yenn acteur de développement yi lan moo war a nekk seen rôle euh, ci surtout ci employabilité ndaw ñi ak euh, ñu promouvoir entrepreneuriat. alors suñu suñu rôle bëri na tey li ñu mën a def mooy jouer par exemple rôle parce que état tey moom moom moom loolu noonu mais tey mën nañu wax ne tey organisation yi mën nañu indi lu bëri ci côté employabilité entrepreneuriat. Mhm. te tey ñoom ñu ngi koy def ñu ngi koy def xëy na loo ko def def def gaa yi nañ ko xeeb. mais tey ñu ngi contribuer lu bëri parce que tey mën nañu wax en de formation renforcement de capacité tey état indi na structure yu bëri yi nga xam ne ñu ngi dox ñun peut-être suñu loolu mooy peut-être continuer aussi information parce que tey ñun ñun ci suñu bopp gis nañ ne am na ndaw yu bëri ñoo xam ne amuñu information ci service yi nga xam ne état mu ngi koy joxe te pourtant amal na leen njëriñ. Mm-hmm. amal na leen njëriñ bu baax service yaa ngi fi ñu bëri xamuñu ko. Mm-hmm. tey suñu loolu par exemple mën na nekk au-delà de service ñuy joxe au-delà de renforcement ñuy def ak yooyu. mën na ñu joxe information bi parce que tey état ñun am nañu accès à cette information là suñu rôle day baax tamit ñu mën a jox ndaw ñi ñi nga xam ne ñu ngi ci biir gox yi ñu mën leen jox information bu ne leen ah état kat mu ngi joxe lii boo amee tel problème mën nga dem lii. tey par exemple war nañu mën a créer benn désinformation peut-être mu ñu ngi wax ay DER ñu ngi wax ay 3FPT ñu ngi wax ANPEJ euh, yooyu yëpp donc c'est des yi nga xam ne mais état moo ko fi teg les DAC yooyu yëpp domaine agricole yi yooyu yëpp dafa nekk yi nga xam ne. état moo ko teg mais pourtant ñu bëri ndaw yu bëri demuñu ci te pourtant ndaw yi ñoo ko moom. Mhm. donc ñun tamit suñu rôle dina baax tamit ñuy joxe information yi noonu. Mhm. au de li ñuy def déjà. ñu yokk ci mhm. yooyu noonu c'est vrai que tey mën nga laal kii suba kële suba kële. voilà euh, euh, mooy critère donc na ngeen ba identifier euh, li nga xamante ne mooy région bi li li mooy seen domaine d'intervention lu ci mel bu ñu nee Kaolack ñu ne Salte jafe nekk il faut dox ci wàllu environnement bu dee Thiès ñu ne peut-être mun nañu wax ne euh, dëkk bi dee comme da ni ñu waxee daal xam ne dëkk bi léegi lañ soxla ngeen soog a mën def euh, seen intervention wala juste da di euh, def li nga xamante ne information ba xam ne dëkk bi lii la soxla ngeen soog a mën a dem implanté wu foofu parce que am dëkk yu bëri yoo xam ne peut-être ñu leen dégg mais mënu ñoo xam ngeen ñëw euh, implanté wu foofu euh, te aussi ñoom euh, bëgg nañ ngeen ñëw fa donc naka ngeen def ne dëkk a a dem samp fa seen seen seen ay seen ay bànqaas yu am ne moom la ñu naan comme volet stratégique bi disons tey Sénégal am na ay orientation am mm-hmm. na ay secteur prioritaire yi nga xam ne état nee problème yu bëri problème yii nii mooy problème prioritaire yi. tey donc INCA tamit day lalu ci loolu parce que bu ñu fàtte tamit ne état moo ñu jox sañ-sañu intervenir. donc loolu état moo ñuy njëkk moo ñu njëkk joxe orientation yi. Mhm. bu état joxe orientation yi ci la ñu xool ci orientation yi corrélé ko ak suñu domaine d' intervention ak ressources yi ñu am ñu xool fan la ñu mën a intervenir dem bu ñu defee priorité bi ñu xool fan la ñu war a njëkkee loolu dafa nekk benn nga xam benn ci critères yi nga xam ne mën nañu ne ah mooy tax ñu dem fii dem fii dem fii dem fii mm. beneen bi mooy li nga xam ne mooy besoin bi moo koy suscité tey par exemple mën nañu gis opportunité par exemple ñu am benn appel à projet je donne un exemple nekkuñu par exemple tey à à ñu ne ah tey par exemple am nañu benn bailleur boo xam ne il finance par exemple à Podor sur projet ñu naa ah, IMCA am na compétence bi mais mosuñ nekk Podor donc tey ñu commencé ñu ne ah suñu proposition peut être nan nañ jël IMCA. Hmm. IMCA bu demee day recruter ay staff ay professionnels lay jël. parce que IMCA tamit du du du ñii ñu jóg nii ñoo dajal nii rek ñu toog déedéet ay professionnels yi ku ci nekk am nga xam-xam am nga loo xam ne moom moom nga jàng moom ngay ñëw nga lal ko donc tout est tout est bien planifié ak yooyu. Hmm. donc mën nañu jàpp ne tey. loolu nekk na ñaari critères yi nga xam ne ñooy orienté suñu zone d' intervention mooy d' abord benn orientation stratégique yi état di nga xam ne tey mën nañu liggéey dans des secteurs prioritaires ou bien dans des zones prioritaires ak beneen bi nga bi nga xam ne mooy besoin bi nga xam ne mooy jóge à la base donc besoin boobu noonu di jóge à la base tey peut bu coïncider ak orientation état loolu day nekk li nga xam ne mooy indi pertinence intervention bi. Mhm. te yooyu yëpp day bokk ci nga xam ne day bokk ci cadrage bi balaa même ngay am même acquisition balaa même ngay am financement bi pour mën a def loolu noonu. Mhm. donc tey beneen affaire bi tamit mooy tey ñu jël benn koñ rek parce que nekkuñu ci koñ yëpp benn koñ mën nañ jékki-jékki gis li IMCAR def mu neex leen ñu ne ah yéen IMCAR tax du ngeen ñëw parce la ñu mën nga ngeen gis rek ngeen ah kaay leen fii ñun war nañu mën a def li ñu toog ñu waxtaan. dañuy toog ñu waxtaan ñun ñu ci biir waxtaan bi yan jafe-jafe ngeen am seen gox waxtaan foofu lay commencé bu ngeen xamee jafe-jafe ngeen am ñu ne ah mënuñoo régler yëpp en même temps fan lañuy ñuy tàmbalee fi ñuy tàmbalee ñu ne ah waa fii la ñuy tàmbalee d' accord bi lii la yi nii yëpp seen i problème d' accord mais fii la ñuy tàmbalee léegi lii lu koy régler lan moo koy faj ñu xool ban moo koy faj ci li koy faj ñu xool ñun lan nga moo lan lañ ci mën ñun ñii waa gox bi ba pare ñu gisee ñun waa gox bi lan la ñu mën ba pare bu ñu jógee noonu ñu ne ah lii moo manqué fan lañ koy wuti fan la liggéey IMCA di commencé mais boo xoolee boo li ci ëpp solution bi ci gox ba lay jógee parce que tey malheureusement dañuy jël rek jël yëpp naan état naan mairie naan nii alors que solution bi mu ngi suñu biir tey damay jël mun nañ jël juste exemple art civilisement tey ñu ngi naan par exemple dëkk yi dafa salte koñ yeeg dafa salté ak yooyu. Mhm. mais tey waa koñ bi mën nañ régler problème boobu benn bu ñu organiser woo waa koñ bi rek ñu ne tey waa koñ bi ñoom ñooy sensibiliser ne. carrément tey léegi amatul sànni ci mbedd bi dañuy def ay mbalit mbalit yi fu muy jógee ku nekk sa kër am nga pôle mbalit ñu ne ah chaque jour pôle mbalit bi mu ngi fii ñu ne ah ku nekk na nga fexe ba yow na nga def ba sa kër set sa buntu ko noonu mbedd bi noonu ñu organise bu ñu paree diw ak diw ak diw ak diw yéenay jël mbalit bi leen di ñii ñoo koy jël maat yi ñee jël bu ñu jógee foofu noonu ñu jël mbalit boobu yëpp oto mbalit bi tel jour lay ñëw ñu organiser mais loolu réglé nañ suñu problème de salubrité mhm. waa wala déet mhm. est ce que loolu jar na xaar état mhm. est ce que jar na xaar mairie donc am na problème yu bëri yoo xam ne tey sa biir gox nga koy réglé donc IMCA ci ci lay liggéeyee pour mën a impacter communauté parce que loolu mooy naka lañ koy waxee développement à la base parce que yu ci bëri da ngay xaar finance di xaar état di xaar alors que yow ci sa bopp yaa ngi ak solution bi te xam-xam boobu mu ngi fi mu ngi ci nit ñi mu ngi ci gox yi mu ngi ak ñëpp donc tey yooyu yëpp day toog waxtaan la rek li manqué mooy cadre boobu ñuy toog di ko waxtaanee parce que tey peut-être ASC war nañ ci mën a liggéey association yi nekk ci gox yi war nañ ci mën a liggéey mais dafa nekk li nga xam ne peut-être xëy na bu ci nekk amul kenn kuy kuy yëkkati affaire bi. Mhm. donc IMCA lu catalyseur boobu noonu lay. Mhm. bu ñëwee gis na ah mu yëkkati association bi yëkkati bi créer benn synergie ci biir gox bi. Mhm. bu ko defee yéen ñëpp yéen ay ànd jógandoo def liggéey bi bu ko defee yéen si boobu yéen ay gis résultat bi bu ngeen ko defee ba mu sotti di mais benn nag naka lañ koy bu ngeen parce que waxoon ngeen avant bi mooy jiitu après xam ngeen bi ci toog bu ñu continuer noonu bu ñu ko defee suñu communauté suñu biir gox ñun mun nañu régler suñu problème te duñ ci xaar kenn mm-hmm. bu ko defee ñu li ñuy def état dina gis ne baax ne état sax mooy ñëw jàppale ñu mooy yàkkamti ñëw mairie bi mooy gis li ñuy def lu baax ñëw copier ko soxla téere ci ñu la leçon pour yóbbu ko feneen donc loolu mooy mooy li nga xam ne mooy vraiment modèle de développement bi nga xam ne mën nañ ko base ci civisme ak citoyenneté mm-hmm. récemment la ñu liggéey ak ministère de la jeunesse ci li nga xam ne moom lañ naan le programme d' éducation à mais li ñu def créé dara lu bees parce que lépp a ngi fi woon li ñu def rek mooy dajale pratique yi nga xam ne mouvement yi association yi ONG yi ñëpp ñu ngi koy def moom lañ dajale tënk ko ci benn document loolu lañ def bi yëpp loolu la dañoo cadre rek organiser waat ko jël bi teg fii mais lépp mu ngi fi woon. donc ça veut dire li ñuy wuti di wër fii wër fële yëpp a ngi fi ba pare li li am solo rek mooy toog toog waxtaan. xool ban la ñuy jël ñu xool naka lañ koy defee lan la soxla ñu toog régler suñu problème. Mm-hmm. mais ni euh, benn lu am important loo xamante je pense Sénégal duñ ko bàyyi xel muy euh, éducation wala santé sexuelle et reproduction. je pense que loolu léegi sax liñ koy jàngalee bëccëg parce que dañ koy jàngal en classe quatrième mais léegi dañ ko éliminer léegi donc ndax yéen euh, yéen ci dox parce que lu ci mel ne loolu mën na tax li nga xamante mooy viol wàññeeku tabu yi nga xamante day am ci diggante parents yi en tant que jeune

lii di ay grossesse précoce dina dina wàññeeku ay yenn viol yi nga xam ne juvénile dina li mm-hmm. mm-hmm. ñuy wax les pères éducateurs ay volontaires la ay jeunes ñoom la ñu formé ak benn curriculum sur la santé. de la reproduction des adolescents et des jeunes. Mm -hmm. il faut pas que ñu xalaat tout de mm-hmm. li ñuy def par exemple pour xale bu jigéen bi il faut nga wax ko âge bi mu toll lan la laaj. ban taxawaay la war am parce que parfois parents yi dañ koy négligé dañuy am complexe wax ak ñoom parce que léegi boo xoolee la plupart des parents bon pas la plupart mais da gis ay jeunes parents yoo xam ne du ñu am espérance du ñu am dinañu am gêne pour wax ak seen doom yi ci question yooyu donc xale yi duñu duñu am fan lañ koy jële ji donc da ngay dem bu amul la bon information tu te retrouves dans des difficultés donc pour bañ loolu dañuy waxtaan ak ndaw ji ay causeries rek la waxtaan ak ñoom ku jigéen ki nga woon ko naka la ne serait-ce que utilisation serviette hygiénique naka âge bi nga toll nii nga gis li ngay gis c'est normal expliquer ko transformation yi ñëw ci moom yëpp parce que dafa bokk ci màggam et loolu il faut mu xam ko intégrer ko nangu ko bu ko defee ko indi benn xale bu góor bi moo xam ne pulsion yi muy il faut que mu gérer ko il faut pas mu xëy rek di réfléchir comme comme mala loo xëy loo sentir rek nga dem defe ka na nga sentir rek déedéet mu am ni benn niveau de responsabilité boo koy jox mu xam carrément li koy ci xaar bu ko defee mu mun a teel a xam ne lii responsabilité la ainsi de suite te ci biir responsabilité boobu day xam ne ay waajuram am na valeur yuñ ko jox pour revenir toujours ci éducation. Mhm. parce que loolu yëpp boo koy boo koy boo koy boo koy jox nit ki da nga koy am foo koy teg. Mhm. ngay sukkandiku muy valeur yi que ñun ñëpp ku ci nekk sa waajur yar nañ la. Mhm. xëy na am yoo xam ne da koy fàtte wala doo ci bàyyi xel donc day baax tout le temps yooyu boo koy def nga fàttali nit ki fa mu jógee fàttali ko mm, lan lañ ci kaw lan lañ ko yaa est-ce que lii sa papa boo gis sa sa papa bu toogoon di nga ko ci may def wala bu la sa papa gisoon ndax di nga nangu mu gis la ci yi ak yi ak yi mhm. donc day nekk yu bëri yi nga xam ne boo ko waxee ko ndaw bi dina xam ne ah war bu ko am mhm. nekk li nga xam ne ay signaux d'alerte lay doon nga xam ne mën nga tout le temps di ko jox ndaw bi mhm. bu ko defee mu xam ban taxawaay lay taxawee bu nekk taxawaay bu responsable donc day nekk li nga xam ne ci ay causeries lañ koy développé di ko def dans les écoles avec loolu ay volontaires ñoo koy def des jeunes ñoom ñooy engagé yoon ah man am naa bi wala pare naa pour def ko maintenant ngeen jàngal ñu formé la nga dem di toog di waxtaan ak xale yi parce que mu doo xëy xëy rek mën ko il faut ñu tàggat la ci loolu donc dañ lay tàggat ba pare pour que yow nga mën a pare ak xale yi. mais ci liggéey ak ak inspection académique yi. waaw pas inspection académique yi spécifiquement mais mm-hmm. avec des écoles. parce que xam nga tamit boo waxee inspection académique parfois couverture bi day large. Mm-hmm. donc pour bañ a aussi dem ci lu bëri li nga xam ne. Euh, tey doo ko mën a gérer ñun dañuy dem petit à petit. Mhm. c'est vrai que dañuy wax ne li ngeen di def baax na mais kenn du leen gis. Euh, parfois ñun duñu duñu communiquer lu bari dañuy liggéey def liggéey bi mu am solo mhm. moo ëpp solo pour ñun que di communiquer mais quand c'est vrai que ñu ñu koy wax parce que tamit day baax tamit ñu ngi di xam li def bu ko defee ñoom bu ñu ko xamee rek ku ñu ci mën a jàppale jàppale ñu ci ku ñu ci mën a fekk sam fekk ñu ci si mais ku nekk day baax tamit ñi ñi xam lii la IMCAD bu ko defee suba ñi ñi mën a jot la bonne information wala boo soxlaa nga xam foo koy jëlee euh, cinq minutes moo ci des euh, ndax am ngeen activité yi ngeen waajal wala bu dee am na ay défis yi ngeen war a relever euh, am nañ peut-être benn activité bu ñuy waajal muy benn camp bu ñuy def fële ca côté kilomètre cinquante muy benn camp bu suñu benn branche bu nekk Dakar di organiser muy branche Parcelles Assainies donc ñoom dañuy organiser camp boobu chaque année dañ koy def ci weeru mois de mars bi ci mars bi lañ koy def ren ñu koy amal du 4 au 6 mars ñoom ñooy participer ku ci bëgg a participer da ngay joxe 3500 ñu euh, ñu koy defee parcelle parcelle la ñuy jógee donc dem euh, fël na la ñuy wax ca ca ca Berdine côté kilomètre ci région de Thiès donc foofu lañ koy defee camp bi dinañ ci def li nga xam ne moo la ñuy wax développement personnel dinañ ci développer également vie en communauté développer également quelques activités en civisme et citoyenneté donc day nekk li nga xam ne cadre yi nga xam ne foofu noonu boo fa nekkee da jàng dund ak askan bi parce que dañuy teg ay règles ñuy jàngal naka ngay respecter règles ainsi de donc yooyu yëpp day bokk ci li nga xam ne moom la ñuy def euh, par exemple semaine yii di ñëw ci weeru mars bi beneen affaire bi nga xam ne ñu ngi koy Euh, peut-être ñu ngi ci laay wax ni mooy suñu projet justice juvénile bi ñoo ngi ci di ko liggéey Dakar Thiès ak Kaolack comme ni nga ko waxee mënuñu koo def ci région yi. parce que mm. tamit loolu dafa laaj benn taxawaay ñun biñ koy commencé. ci njàngat ci njàng la ñu nekkoon mais léegi mën nañu wax ne xëy na passé nañu classe supérieure donc ñoo ngi koy commencé maîtriser mën nañu. Mm-hmm. mën nañu cee jubal. mais day laaj xaalis bu bari pour que ñu mën koo tasaat donc yooyu peut-être mooy ñaar nga xam ne mën nañu ko tàggatoo. Mm-hmm. te euh, di wax nit ñi ku bëgg a bokk IMCA. xamal ni la porte est grande ouverte. nga ñëw ñu ngi Bourguiba en face pharmacie Bourguiba bi. boo mhm. jàllee euh, université Dakar Bourguiba suñu siège foofu la mhm. nekk. Mhm. boo ñu fa fekkee lépp lu ñuy def ubbil nañ ko ndaw yi. am ngeen lu mel ne page Facebook wala du genre. yoo xamante ni euh, nañ chaîne YouTube am nañ tamit suñu site internet. IMCA Sénégal. merci tàggatool rek Christian Léon nee heure bi jeex na. <laughs> Léon bàyyi la nga tàggatoo. waaw di leen di leen remercier ci invitation bi. di remercier également l' ensemble des auditeurs de Rewmi FM di gërëm euh, tamit vraiment euh, suñu volontaires yi nga xam ne tey ils ont à divulguer ce message là en espérant que tey ñi ñu déglu ñëpp. Mm-hmm. jëlee nañ ci dara parce que loolu mooy objectif communication bi. Mm-hmm. jëlee nañ ci dara te IMCA xëy na amoon na njëriñ ñenn tey. Mm-hmm. am na solo vraiment Mor Fall. waaw voilà donc damay woo rek ñi nga xamante ñoom ñooy euh, autorités yi ci benn ministère de la de la santé ministère de euh, bi nga xamante moom mooy yor wàllu euh, jeunesse aussi ñu jàppale li parce que je pense que ça ça fait partie li yi je pense que ñu siy dàpp baax baax donc di ko jaajëfal moom aussi leen encourager seen engagement bi ñu jël donc di la jaajëfal yow aussi képp koo xamante ne a doon déglu jamono ji secrétaire exécutif régional IMCA Dakar hmm. coordonnateur justice juvénile ñuy def liggéey vraiment bu am solo fii ci Sénégal ñu leen di encourager euh, di gërëm Léon Paul Mendy mi féete woon ci technique bi sama njaago bu ñaawul bi ah di gërëm. kii waaw. waaw ndeysaan tey aw ma aw ma direct Facebook. ak hmm. YouTube Malick ñu koy jaale bu baax. waaw génn àdduna yaay ji yàlla xaare ko àjjana mm. di gërëm mbooleem mbokk déglu déglukat bi ñu doon bàyyi xel mm. di leen jox di dajee mercredi bi di ñëw même heure même fréquence beneen thème ak beneen invité